ji la location bi gën a cher tey ji la locataires yi daal di gën a sonn ngir waxtaanee mbir moomu moomulee tamit ak lan moo ci solution moo waral ñu daral Elimane Sall nekk njiitu association pour la défense des locataires du Sénégal ñu koy nuyu di ko dalal jàmm Elimane Sall. Euh, Ndeykumba maa ngi lay fay di la nuyu di la gërëm ci invitation bi. voilà ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité euh, ñu lay laaj association pour la défense des locataires du Sénégal bi ngeen koy sos wund woon exactement. waaw li ko wund woon rek mooy euh, dañu nekk ci dëkk boo xamante ne nii euh, dañu doon gis ne àq ak yelleefu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci secteur bi. Euh, du tout le temps lañ ko daan respecté euh, boo xoolee sax li gën a sabab création association bi defe naa ne mës naa ko wax ci sa benn émission bu ma ñëwoon dañu toogoon man ak sama yenn xarit ñu gis benn euh, femme bu ñu génnee en plein hivernage muy taw ci kawam moom ak ay bagages bi loolu amee ñu taxaw on était impuissant ma ne sama gars yi daal même bu fekkee loi moo ko génne même bu fekkente ne am na yoon boo xam ne moo tëral lii humainement lii warul am explication bu valable automatiquement nag ci la ñu def lee démarches qu'il foo dem au ministère du de l'intérieur déposer ba am récépissé pour mën na taxawal li nga xam ne mooy association bi association bi nag bi ñu ko taxawalee ba léegi ci ban at la woon ci ban at la woon ci 2009. 2009 d'accord. 2009 voilà. alors bi ñu ko taxawalee ba léegi itam li ci gën a ëpp solo euh, mooy conseil orientation assistance dañuy conseiller locataire bi am na yenn bailleur sax yoo xam ne dañuy solliciter léeg-léeg mais li ci ëpp nag locataire yi nga xam ne xamuñu seeni droit ñoom ñooy ñëw par rapport ak benn jafe-jafe bu ñu am laaj ñu conseil ñu waxal leen orienter leen. léegi-léegi itam euh, ki nga xam ne moo topp ci man di vice président bi di maître Bassirou Sakho ma koy nuyu au passage moom mooy jël dossier yi dem tribunal constitué wu libre euh, gratuitement euh, pour ñooñu nga xam ne seen dossier dafa egg au niveau du tribunal donc en association bi noonu lay fonctionner boobu ba léegi nag am nañ ay dossiers yu bare bare bare ak expérience bu doy waar Euh, mais ñu ngi ci waslu àq daal di ci jaamu yàlla. te lépp euh, liggéey association bi bénévolat la wala exactement comment ça se passe. waaw bénévolat la ndey kumba ndax fi association de consommateurs yi pratiquement euh, amuñu subvention bu ñuy jot ci état. ah la ñuy am rek mooy peut-être xëj na carte de membre yoo xam ne dañ koy jaay seeni membre loolu rek lañu mën a am comme ressource te fii boo waxalee yàlla xam ne. ñi nekk ci ay jafe-jafe waroo mën di leen soutirer xaalis tout le temps donc à la vente des cartes de membres amul beneen ressource boo xam ne association bi am na ko donc euh, moyens moom vraiment euh, bëriwul daal amul sax nag laa mën a wax. est que ñu ngi ñëw sax di di jënd ay cartes de membre bu association pour la des locataires. am na ñuy ñëw di jënd est-ce que di jënd. Euh, am na ñuy ñëw di jënd mais du ñëpp ñu ci bëri daal la plupart du temps. dañuy bàyyi ba am problème. ñëw ñëw wala bu ñu ñëwee doo leen mën a imposer parce que locataire bu nekk ci jafe-jafe am problème ñu wàcc war koo génne ci këram wala mu am ay ay ay ay jafe-jafe ci wàllu xaalis boo ko nee da ngay jënd balaa ma lay waxal dara wala balaa ngay dugg day mel ne da nga koy chantage. Mhm. et là du coup da koy euh, conseiller orienté ko wax ko nag ne ko association bi nii la demee. su ko xelam mayee mu jënd mu jënd su ko xelam mayul wala ay kàttanam mayu ko ko ah nga bàyyi ko rek mu dem ndax itam euh, ñëpp lañ fi nekk. léegi accompagnement bi locataire bi am jafe-jafe ak bailleuram ba ñu war ko génne ainsi de suite mu ñëw si yéen euh, da ngeen koy utal avocat da ngeen koy conseiller euh, naka lay demee exactement wala da ngeen koy aider financièrement. non financièrement moom am na ñu ñuy solliciter sax mais amuñu ko financièrement mënuñu ko ndax amuñu moyen yi léegi léegi nag mu am ñu ñu woon di ñu solliciter sur le plan financier. yaakaar ne ñun on a les moyens mais amuñu benn moyen alors assistance bi moom mooy suñu credo suñu crédo mooy képp koo xam ne am nga loo xam ne lënt lënt la wala loo xamul parce que question de droit la mbiru contrat ak mbiru location euh, nit jàng na sax te xamul la nga xam ne moo ko tënk bu boobaa wax naa la ko sànq ki nga xamante ni nii mooy vice président bi di mettre Bassirou Sakho avocat à la cour la di recevoir les cas de contentieux au niveau de son bureau pour mën di leen jàppale en terme juridique jàppale leen bu ñu demee tribunal orienté leen bu fekkee jar na constitué wu sax parfois moo leen di constitué wul et gratuitement duñ ci laaj kenn un franc. léegi tey ji Elimane Sall lan mooy droit wu euh, locataire bi quels sont les droits de des des locataires maanaam locataire bi lan mooy àqam mais tamit lan mooy yelleefam. waaw ak xam ak yelleefam bëri na euh, soxna Ndeye Comba dama la ciy citeel yenn rek yi nga xamante moom mooy yi nga xam ne du ñu fi nekk naan la décret tel loi tel mais basique nga xam ne même le euh, locataire moyen parce que doo xoolee euh, loi wu Sénégal yi dañ koo tëgg ci France donc léeg-léeg ngay ñëw ki nga xam ne jàngul amul benn connaissance juridique soo fa nekkee naan ko loi ak décret daanaka yaa ngi koy réeral ñun li ñuy def rek mooy. bu fekkente ne locataire bi signé na contrat contrat boobu da koy engagé bu ne par exemple la cinq laa war di fay sama sama sama loyer bu eggee la six wala le sept wàccoo na ak li nga xamante moom la signé ci contrat ba su fekkente ne mu ngi fay nag loi bi daf ko protéger très très très très très sérieusement dama lay jox benn exemple locataire bi tant mu ngi fay yore quittance am benn borom kër mënu la tëb tëb rek génne ko ci ci ci ci ci ci neexaayu bakkanam Mm-hmm. mu ngi mel ne yow weer dee ngay fay régulièrement sa borom kër borom kër gi même bu fekkente ne daf la bëgg a génne il faut mu bind benn congé sommation jox ko huissier mu visé ko mu wax motif yan moo tax mu bëgg la génne te loolu di nga am délai bi ñuy wax délai wu six mois loolu benn la ci. te si six mois yooyu est-ce que locataire bi dafay continuer di fay wala du fay. waaw dafay continuer di fay forcément parce que bu fekk. chaque mois. Hmm. chaque mois day continuer di fay ba six mois yi jot mu laajte nag caution ak avance am. ñu jox ko ko mu génn. am na ñoo xam ne nag dañ naan la non boo eggee ba deux mois yu mujj yi danga koy tëdd su ko defee muy caution bi ak avance mais loolu yoon waxul dañ la caution ak avance bi da nga koy téye ba bi di dem dernier mois bi mu fay tëdd mooy avance bi caution bi mooy bu fekkee dafa bàyyi ay facture d'électricité facture ndox. wala yu demee noonu nga xam ne di ko ci jël euh, fay ko ci loolu daal principalement euh, moom la locataire bi bu fekkente ne nag moom locataire bi moo bëgg a génn dafay bind aviser borom kër gi deux mois avant muy génn ne ko ah man kat maa jëloon sa apartement nangam waaye mois sangam dama bëgg a génn parce que damaa pare sama kër wala damay toxu kooku tim jël ay disposition pour mën a organiser loolu delloo la sa caution su ko defee yow it nga génn bu fekkente ne yoroo fa ay arriéré euh, courant ak ndox pratiquement daal locataire bi tant que mu ngi fay régulièrement loi bi daf ko protéger bu baax a baax a baax léeg-léeg nag ñu gis ci ay abus abus yi mooy euh, ëppal goo xam ne parfois man maa moom sama kër dama laa bëgg a génne suba suba wala ginnaaw suba bu ma la fi fekk wala weer bii bu deeyee na génn hmm. loolu bépp locataire buñ ko wax na xam ne teguñ ko ci yoon te légalul su na dafa war a bañ automatiquement am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba dajji sa buntu euh, déjjati euh, lépp loo xamante ni nii mooy sa ci sécurité am ñoo xam ne dañuy couper sa courant couper sa ndox mhm. uniquement pour obliger la nga génn appartement bi ñu luye waat yooyu yëpp wàccoowul ak yoon ñun nag loolu moo ñu tax a jóg locataire boo xamante ne nii am na problème bu demee noonu suñu saisiré loolu la ñuy wax voie de fait voie de fait mooy dajji bunt mhm. couper ndox couper robi euh, courant euh, déjjati lépp loo xamante ni ñuy locataire bi moom la doon utiliser foofu da ngay dem constater ko par huissier yóbbu ko ci juge bi porter ko plainte loolu jotewul ak luwaas bi dara dara mhm. donc yu bëri yu demee noonu ñun dañ koy dañ ñu koy wax euh, couper na sama ndox parce que daf ma ne génnal ma bañ coupé na sama courant parce que daf ma ne génnal ma bañ et cetera et cetera donc il faut que locataire bi ci boppam jege association yi pour que lépp loo xam ne ak xam ak yelleefam la ñu mën di ko euh, préserver parce que ñu ci bëri ñu ngi signé ay contrat mu am li ñuy wax ay clause abusive clause abusive mooy nga loué ci kër ñu naan la vingt deux heures nga war a tëdd mhm. wala bu neuf heures jotee damay tëj sama buntu kër mhm. wa wala euh, bu fekkente ne da nga fiy dugal yenn nit yi mu ne la noo kii neexuma du fi dugg. Mm. wala sama jabar dafa yooyu yëpp ay clause la yoo xam ne nit ki daf ko war a bañ buy signer contrat bu ko ci bindee teg ci sa baaraam ne ko lii ak lii ak lii moo tax du ma signer contrat bi parce que sama droit may na ma bu ma luwee ci kër gi di tubaab di wax droit de jouissance dama ko ci am donc am naa droit recevoir ci samay mbokk ak samay xarit. tant que defuñu loo xam ne yoon daf koy tere mais malheureusement gis nañ ci yenn kër yoo xam ne borom kër gi léegi-léeg day day day day ëppal danaan voilà man sama kër bu onze heures jotee wala bu vingt deux heures jotee dama koy tëj soo ñëwul doo fi dugg et hmm. léegi euh, Elimane Sall si euh, période Covid 19 ba léegi ñu ngi si sax mais sûrement euh, gis nga bi Covid 19 bi gënee tar ñu ne locataires yu baree bari dañu leen a daal di expulser parce que mm-hmm. ñu bari ñàkk nañ seen liggéey amatuñ woon lu ñu fayee est-ce que dossier yu demee noonu jot ngeen ci yu baree bari ñoo xam ne Covid 19 bi tax na amatuñ di leen génne fa ñu nekkoon en location. waaw soxna Ndeye Comba ñun bi ñu mujjee def recensement romboon na deux mille dossiers rien que ci tribunal d'instance bu Dakar bu Pikine ak bu Rufisque. te loolu li ma lay wax nii euh, war na mat à peu près ay quatre wala cinq mois. alors ñun bi Covid bi ñëwee euh, bañ na rester chez am ñoo xam ne dañ dem chômage technique am ñoo xam ne dañu doon jaay nii ci mbedd mii ñu aaye leen ko ñu yore woon restaurant tëj ñi nga xam ne dañu nekkoon ci événementiel seen mbir yàqu dañu bind président de la république jaarale ko aussi ci ministère de la justice ne leen yéen ne ngeen ak pandémie bi tout le monde doit rester chez lui période confinement bi par exemple amoo droit génn ñu bind président ne ko dañu bëggoon tout ce qui est expulsion ñu gelé ko ba nga xamante ne nii euh, mbas mi xaw na wàññeeku wala boog jeex na ah ay la yéen aussi booba toppoon nañ ñu ci loolu gelé toutes les expulsions maanaam période boobu président dafa bindoon décret parce que dafa amoon li ñuy wax loi d'habilitation mooy yoon mayoon na ko mu jël yenn décision yi te du ko jaarale assemblée président daal ne période Covid bi ak euh, couvre-feu bi bu kenn génne benn locataire mais loolu itam dafa jur benn jàngoro ndax ña nga xamee ne dañu pertoon seen liggéey ñi nga xam ne nii seen liggéey dafa yàqu woon ñu toog bañ a fay ba loi d'habilitation bi jeexee rek daal daal dañoo borom kër yi dañoo dajaloo ñoom ñëpp yóbbu leen leen tribunal maanaam ay milliers et des milliers de dossiers ñoo fa nekkoon fekk ya nga xam ne ma nga fa woon léegi nag bu dee président daf ne woon buñ génne kenn nga toog deux mois wala trois mois dajale ko fayoo ko su su suñu lever mesure boobu rek automatiquement sa arrière yi day bëri. Mhm. ce qui fait ci Covid bi ñi ñu génne ci ay locataires kenn xamul nu mu mhm. xamul nu mu toll. loolu nag euh, ñun dañ ci doon interpeller bailleurs yi dañ doon privilégier négociation parce que mu mënoo couvrir koo xam ne quand mu ngi dëkk ci kër nit te loolu ay ay la yéwén loi bi sax nanguwu ko ñun li ñu doon privilégier mooy négociation dem ci boroom kër yi négocier bu fekkente ne nit ki nangu na fay mu def ko système de moratoire mhm. maanaam buy fay teg ci tuuti ba arriéré yi mu éponger ko intégralement et loolu aussi ça nous a valu bi ñu demee ci yenn région yi fu mel ni Mbour par exemple parce que secteur hôtelier bi dafa dafa développé suñu représentant bi euh, am na fa ay membres yoo xam ne bi ñu demee gis borom kër gi dane leen may naa leen cinquante pour cent ci li ngeen waroon a fay léegi dee leen ma jox cinquante pour cent maanaam bu ngeen di fay cent cinquante mille mhm. léegi dee leen ma jox soixante quinze ba situation bi tanewaat donc il faudrait muy bailleur bi muy locataire bi ñun ñëpp ay sénégalais lañ ay consommateurs lañ kii dafa investir di ut lu mu am dundal ko njabootam wala mu lu mu am pour euh, euh, euh, liggéeyam këlee amul kër di wut moom itam fu mu dëkk moom njabootam donc ñoom ñaar ils sont condamnés ñu dund ensemble mais malheureusement borom kër yu ci bëri jàppee wuñ ko noonu foog nañ ne buñ la luwee rek yàpp nañ la dañ la war a traité n'importe comment te affaire yi warul doxee noonu parce que locataire bi ñaan na yàlla am kër ba génn ci lu mais mais mais Elimane lu tax yéen déggatuñ leen bu baax a baax seen association bi euh, comme niñ leen daan déggee alors que euh, problème mu location tey jii la daal di ëpp fii ci Sénégal ci kanam sax dinañ ñëw ci loi bi exact soxna Ndeye Comba ñun ñu ngi ñuy dégg bu baax a baax <laughs> mais pratiquement def naa euh, ci ci ci période bii nii rek weesu ay intervention au niveau national et au niveau international Mhm. Euh, pratiquement démarche yi ñu ngi ci di yëg di dem wàjj tribunal amul benn bis bu ñuy toog te dégguñu euh, amuñu ay une dizaine d'appels ñoo xam ne dañuy demander conseil demande ay orientation léegi nag bu fekkente ne sur le plan médiatique la c'est un peu difficile parce que mënuloo à chaque fois boo réaliser ay actions dem sur la place publique wax ko wala nit am cas parce que am na ñoo xam ne dañ lay woo ci sutura la ñuy bëgg mu nekk tey da ngay gis une dizaine de personnes saisir nañ ñu temps yi cité Alioune Sow li nekkoon seen problème mooy le les les quatre mois yi nga xam ne actuellement moom la ñuy laaj léegi au lieu de trois mois dañ lay laaj quatre mois avant ngay dugg. Hmm. loolu intervenir nañ ci wax nañ ci fu nekk. yuuxu nañ ko am na sax cinq mois am na ñuy laaj cinq mois. Hmm. yooyu nag ñun moom la ñuy dund. ñu nga xamante ni nii mënuloo dem ci rajo yi naan rek la naal diw seen i cas diw seen i cas même cité Alioune Sow boobu ma tudd sax souvent après gêner quelques-uns mais agence ya fa nekk mënoo dugg ci kër te joxe woo quatre mois wala lu ko ëpp am na yeneen yoo xam ne ci gël tàppe gi nga xam ne étudiants yi fa la ñu ëppee suñu euh, euh, membre étudiants yi léegi léeg dangay ngay bëgg dugg ci benn chambre pour louer ko en tant qu'étudiant dañ lay laaj ay sept wala dix mois parce hmm. que simplement am na ay étrangers yoo xam ne bu ñëwee mën nañ la fay un an donc bëri nañ ay cas yoo xam ne ñu ngi koy gérer mais nag amuñu moyen wu aussi di déployer wu sur le terrain surtout bu fekkee financièrement ça demande vraiment des moyens pour que nga mën ñu lay dégg tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps il faut nga am financement il faut nga am yenn euh, euh, moyens yoo xam ne di nga mën di déployer wu régulièrement sur le terrain. mais mais Elimane voilà yéen yéen seen association bi lan la wax si euh, ñi nga xam ne dañuy tabax seen immeuble ba mu yegg mu nekk bu bees ñu affiché ne ñoom loué wuñ sénégalais maanaam étranger rek la ñuy loué sànq sax wax nga ko. si yenn zone yi waaw. bind nañ bind nañ ñaawlu ko yónnee nañu kilifa yi aussi. pour que situation boobu parce que ñun ñu ngi def un travail de recensement day kumba mhm. am na yoo xam ne dañ koy def sans tambour ni trompette sans aller dans les médias mais tey suñu membre bu ñu saisir ne ñu agence nangam wala borom kër nangam dafa ma ne du ma loué sénégalais étranger lay loué recensé nañ numéro kër ga ak borom kër ga ak kam ko wax ku laaj quatre mois jëm kaw contrat ba bu fekkee borom ñëw na enregistré nañ numéro kër ga enregistré nañ turu agence bi ak borom kër gi base de données boobu la ñuy bind jël ko jébbal ko autorités yi léegi nag ñun amuñu pouvoir de dissuasion maanaam mënuñoo wàññ loxo borom kër yi ndax amuñu doole jooju li ñu mën mooy bu ñu gisee situation d'injustice bu mel ne du ma loué sama kër euh, euh, euh, sénégalais étranger laa koy loué du ma euh, loué koo xam ne indiwul ay bulletin de salaire yooyu yëpp a ngi ci. voilà dañ lay laaj ba laaj la sa. bulletin de salaire contrat de waaw. Mhm. contrat de travail loo xam ne sax même au sein d'une entreprise du ñëpp koy gis dañ la koy laaj léegi yooyu c'est c'est interdit par la loi parce que dañ ne loi bi lu mu lu mu autorisé wul rek aaye na ko de façon euh, euh, implicite yooyu nag recensé nañ ci yu bare bare bare bari yoo xam ne dañuy def ampliation jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a jox. ñoo ko war a jot suñu réagiré tant mieux suñu réagirul nag ñu toogee ak ñu mel ni yéen muy taskatu xabaar yi dinañ dénoncer situation yooyu wax ko ba ñëpp dégg ko bind ko génne ko ci réseaux sociaux yi ñu ngi nag dans un travail de recensement e bu fekkente ne loolu dakkul parce que on dirait que depuis la loi de 2014 le secteur ba de mal en pis léegi lu daan jar cent mille daanaka dem na deux cent ba trois cent mille lu daan jar cinquante mille dem na Euh, deux cent cinquante mille jëm trois cent mille imaginez ñu lay laaj deux cent mille nga war a verser quatre mois d'un seul coup. Mhm. ñu nekk huit cent mhm. muy huit cent mille weer bi ci topp automatiquement da nga war a fay. Mhm. cest à que borom kër yi aussi liggéeyuñ pour que secteur bi mën a euh, euh, tàqalikoo ak problème ndax man bu dee borom kër laa bi yëngu ci benn secteur li ma war a def mooy tous les problèmes yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi damay def de sorte que. dootul am mu mais bu fekkente ni ñoom dañuy gën a mettre situation bi ah locataire bi devant le besoin il est obligé de prendre mais bu jëlee itam li li ciy topp mooy yéeg ak wàcc dem ci procès euh, dem tribunal traîner six mois ñu naan non locataire bi jël na sama xaalis yóbbaale ko fekk yow yaa di yaa metti condition yi donc il faut que ñu wootee au sens de la responsabilité pour que borom kër gi xam ne locataire bi du noonam locataire bi partenaire la collaborateur am la moo koy indil xaalis et que ñoom ñaar ñëpp mu tuuti tey teew daal moo gën mu bëri te doo ci jot. voilà Elimane nga ñëwaat ñun ci euh, historique bi maanaam xeex bi ngeen xeex ba ci 2014 euh, ñu voté benn loi fii ci Sénégal pour wàññi location bi euh, xeex boobu naka la demee exactement ba ñu voté loi bi en 2014. alors xeex boobu mu ngi dem ci euh, nii ñu tàmbali nii rek ndax euh, demoon nañ ba euh, luwaas daanaka mu ngi mel ne nga yenu paan bu diis buñ la dabul yenn la rek boo moytuwul di nga daanu luwaas bi dafa demoon ba képp koo xam ne yaa ngi liggéey soo fayee ko daanaka lépp danga koy yemale ci luwaas maanaam mu budget budget góorgóorlu sénégalais yi daanaka attanatul woon dund gi ndax bu fekkente ne par exemple da ngay fay luyaas lu cher ceeb ñëwagul diw ñëwagul courant ñëwagul njàngu xale yi ñëwagul finalement c'était intenable et ñun bi ñu euh, président de la république Macky Sall ci campagne am la promettroon ne heure bu ma yéegee dinaa wàññi luyaas parce que moom dafa dund situation boobu bi mu yéegee aussi ñu continuer di dénoncer cherté bi defe naa ne su fekkente ne euh, fàttaliku ngeen ñun ñooy première association boo xam ne dafa spécialisé wu uniquement question wu loyer hmm. am na yeneen association de consommateurs yu ci doon yëngatu et le tout moo tax ba président de la république jëloon loi boobu ñun ñu nekkoon ci commission bi aussi euh, euh, ndem si yàlla président Iba euh, Der Thiam jiite woon ko ñu koy ñaanal yàlla teral suuf si kawam et bi loolu amee ñu travailler ci recevoir ñëpp génne loi bi immédiatement parce que ñu bëri dañ naan loi bi dañ koo taf tafee mais une loi même bu fekkente ne elle est mal faite te muy viser l'épanouissement du grand public elle est souhaitable cette loi là léegi nag benn loi parfaitul loi bi génne nañ ko ñu ne baaxul mais loi bi bu baaxul nañ def évaluation jooyanti ko seet rëq-rëq ya ca nekk ñu mën koo modifier ba locataires yi gis ci seen bopp mais depuis que ñu voté loi bi def nañ benn yoon évaluation et après c'est tout on a laissé les locataires entre le mains des bailleurs ñuy signer seen contrat nu mu leen neexee di fixer seen i prix nu leen neexee ba malheureusement situation bi dellu si waat foo xamante ni nii euh, jéggi na passé na bu baax a baax bu ya ba bu bu yàgg fa nga xam ne fa la nekkoon au au départ bi ñuy jël euh, euh, loi mil 2014 parce que situation bi ñuy dund moo raw fuuf situation bañ doon dund en 2014. am na sax sénégalais yuy wax ni waruñ woon voter loi bi fii parce que dafa indi ay jafe-jafe yu métti comme ni nga ko waxee. waaw xam nga euh, sénégalais yi wax waruñu woon voter loi bi dañoo xamul rek c'est que gouvernement bi moo deful la ko war parce que bu fekkee da nga am loi boo xam ne ñëpp ci ànd d'accord parce que bi ñuy voter loi bi député yëpp ñoo àndoon voter ko. mais li ci gënoon a am solo mooy suivi bi suivi ba ca war nag moo amul malheureusement parce que loi bi ñëpp ko apprécier woon tey képp kuy wax ne waruñ ko woon a voté lenn rek moom moo tax nga koy wax mooy dañ koo voté ba pare soofantal ko borom kër yi itam mer yaakaar ne contre ñoom la woon ñu yéegalaat seeni prix pour que en cas ñu bu ñu indiwaatee loi ñoom ñu mën a dellu fa ñu nekkoon mais képp kuy wax ne loi bi amul njariñ booba dangaa xamul ne am na ba léegi ñi may wax ak yow ñoo xam ne bëri nag ñu ngi dund ci seen i kër te wàññi ba am ca loi boobu la jógee bëriwul nag mais gouvernement mooy def heure bu jëlee loi bàyyee ko population yi ne leen kat ku ci am soxla demal tribunal yéegal wàccal su ko defee bailleurs yi tim ñu utiliser ay moyens contourner loi bi génne locataires yi peinture jox ñenn ñi congé et yokkaat affaire bi dellu fa mu nekkoon mais bu fekkente ne man laaj nañ ma sama avis mooy loi balaa ñu ko fay jëlati. Mhm. nañu teg des mesures yoo xam ne des garde-fous de telle sorte que loi bi bii bu ñu ko dina ñu mën appliquer ko à la lettre sur le terrain parce que loi bu ñu koy jël population yi ñoo tax mais jël loi boo xam ne da nga naan population yi loi ngi nii ayca dem leen ku ci am problème na nga dem tribunal tey yow doo bàyyi sa liggéey bokk ci rajo ba di yéeg a wàcc tribunal ak lenteur yi ñu am donc loi bi baax na mais dañu ko deful suivi ba ca war defuñ évaluation ba ca war ah de telle sorte que borom kër yi aussi xaalis la ñuy wut buñ gisee ne kenn nekkul ci seen ginnaaw dañuy yokkaat delloo prix yi fa mu nekkoon te léegi ku waxal yàlla xam ne prix yi dafa gën a jéggi dayoo locataires yi sonn nañ coono boo xam ne actuellement Euh, kenn xamatul lu mu toll man bërki démb rek am na ñu ma woo Médina ak Parcelles asseni hmm. nee na ñoom dañu bëgg dugg ci combat bi def yeneen association de consommateurs yoo xam ne day yëngu ci secteur bi ma ne leen force yi lu mu gën a bëri rek gën a baax parce que c'est le même combat c'est le même combat donc Ndeye Comba il faudrait que nit ñi delloo si seen xel borom kër yeeg locataires yi parce que locataires yi itam am na ci ñoo xam ne la yàlla xam doy na. Mhm. dañuy yore seen avance ak seen caution. duñ fay ñu duggee ci kër topp un an wala six mois du ñu fay ñu génne leen ñu dem wutiwaat feneen. ñu kenn du leen faral ci njubadi googu waaye ay la yéwén boroom kër yi am na ci ñoo xam ne daw lu ñu yërmande lu leen neex la ñuy traité locataires yi ah, di couper seen ndox di leen ñàkkee kersa lu ne lañ leen di wan am na locataires yoo xam ne la ñuy dund ci kër ya ñu dëkk. buñ la ko waxee sax yow doo ko doo ko mën a gëm donc il faut que l'homme sénégalais ñun sénégalais yi ñu xoolaat suñu bopp de tell sorte que yërmande ba nga xamante moo fi musoon a am démbal bërki démb muy borom kër gi muy locataire bi ñu delloo si ko pour que secteur bi mën a retrouver li nga xamante léegi nag ci may attirer attention wu euh, ndey Comba waaw euh, yéen ak seen rédaction mooy bu ngeen defee une petite enquête li ngeen gis ne secteur bi c'est tellement juteux que aujourd'hui dañ ko assaillir tey boo xoolee la secteur des yi ay étrangers ñoom ñoo fi nekk léegi di tax tabax seeni immeuble te ñu ci deful ndànk dinañ dem ba nangu secteur bi parce que effectivement boo xoolee euh, am na nationalité yoo xam ne bëgguma stigmatiser mais tey euh, ñu kam ñu mel ne indiens yi ñu mel ne marocains yi ñu mel ne turcs yi ñu mel ne chinois yi ñoo investir secteur bi léegi di tabax seeni immeuble di louer te bu boobaa dinañ ne ñii kat ay investisseurs la ñuy ñëw dañuy loué loolu loolu nga xam ne SICAP ak HLM ñoo ko waroon a def loolu nga xam ne promoteur sénégalais yu baax yi ñoo ko waroon def léegi étranger yi ñu ngi ñëw di ko nangu te pétrole bi ak gaz bi nga xam ne moo nekk ci réew mi bis bu génnee location Dakar moom leneen la ñuy wax waaye kenn dootu ko àtt mais mais mais euh, euh, Elimane euh, est-ce que bi ñuy teg loi bi amoon na mesure d'accompagnement parce que nee nga loi bi baax na ñëpp ah, d'accord nañ mais est-ce que amoon na ay mesures d'accompagnement pour yi failles yi nga xamante ni actuellement am na si yëpp mu bañ si am effectivement effectivement foofu Ndeye Comba question bu pertinente la hmm. amoon na presque une vingtaine de mesures d'accompagnement yoo xam ne ñun tëggoon nañ ko bi ñu defee commission bi ba pare parce que tim doo laaj borom kër gi ne ko da wàññi sa kër ba pare doo ko defal dara ndax ki nga xam ne dafa dem jënd terrain bi mètre bi di jar lu cher mu jënd ciment ak fer ak béton fay entrepreneur mu tabaxal ko mu leb ca banque ba effectivement dafa bëgg un retour sur investissement ñun defoon nañ ay recommandations yoo xam ne entre autres bokkoon na ci mooy ñu éliminer lépp luy charge lu jëm ci matériaux de construction yi maanaam ciment bi maanaam fer bi maanaam euh, mètre carré kër yi li muy jar ak yooyu yooyu yëpp defoon nañ ay recommandations yoo xam ne c'était en faveur du bailleur parce que boo nee bailleur bi wàññil tamit war nga koo dindil yenn taxes yi nga xam ne moom mooy cheral li jëm ci tabax malheureusement recommandation yooyu ak euh, euh, mesure d'accompagnement yooyu pratiquement jëfewuñ ci dara dañoo xëy rek ne bailleur bi di nga respecté li ñu wax waaye ñun li ñu la dig duñ ci def dara boo xoolee li gën a metti loi bi pour mu jàll aussi loolu bokk na ci mais amoon nañ à peu près plus d'une vingtaine de mesures d'accompagnement mais malheureusement et d'ailleurs recommandé woon nañ sax ne une fois que loi bi pare dañu war a def benn observatoire des loyers de l'immobilier et des loyers observatoire boobu di saytu lépp luy problème ci secteur bi de telle sorte que lu ci nar a indi rëq-rëq rek dañ koy joyant waaye itam loolu yëpp euh, courage daal di xëddeen daanaka bañ voté loi bi yi bi ci toppoon nit ñi kontaan bailleurs yi mer locataires yi kontaan ah gis nga li ci topp tey situation boo xam ne la neexul kenn ñun nag li ñuy wax mooy loi moom depuis mille neuf cent soixante seize soixante dix sept 81 ba 2014 ay loi kese la ñuy voté fii ci Sénégal léegi nag on a suffisamment de lois et de très bonnes lois li des mooy ñu appliquer ko sur le terrain et il ne faut plus qu'on en rajoute qu'on en rajoute di dajale ay réunion à n'en plus finir di génne ay lois yoo xam ne après on va les laisser dans les tiroirs muy nelaw li ñu soxla mooy euh, une police des loyers wala ay organisme organe de contrôle yoo xam ne dans les communes les le plus décentralisé possible de telle sorte que man bu ma dëkkee parcelle wala ma dëkk Grand Yoff su ma amee problème rek automatiquement am na bureau boo xam ne damay waaxu dem maison de justice yi dinañ koy def mais euh, matewul fépp donc état war na mën dans chaque commune ñu ubbi fa bureau d'enregistrement des des des contrat de loyer dinañ am base de données mais itam dina leen permettre ñu contrôler ce qui se fait contrat yi ndax jaar na yoon ensuite boroom kër yi est-ce que ñu ngi fay taxes yi normalement parce que foofu tim état mu ngi fay perte lu bëri am na ñu tabax kër ay immeuble di ko loué daanaka duñ fay état bi benn taxe te ñoom ñu ngi dund ci ndoddu locataires yi donc il faut que secteur bi état bi organiser ko de telle sorte que borom kër gi nga xam ne dafa def investissement am mu gis ci boppam mais locataire bi aussi mën a fay pour que ëllëg mu mën a denc euh, dara à côté pour am këram moom itam dem ñibbi mais bu fekkee dañ leen a bàyyi ñoom ñaar rek c'est la loi vraiment du plus fort et ki ëpp doole day gën a noot toujours ki nga xam ne moo gën a doole te ki gën a doole mooy locataire. voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii euh, Ndeye Comba Moreau dalal Elimane Sall nekk njiitu association euh, pour la défense des locataires du Sénégal ñuy waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni moo am ci wàllum location bi ki la di Momar Ndao bu ASCOSEN bokkoon ci commission bi nekk association consumériste am ci mbir mi ak jafe-jafe yi nga xamante ni loi bi am na actuellement yow naka nga gisee taxawaayu Momar Ndao est-ce que dafa war ne tekk tekkaaral wala nu mu war a def te mu bokk ci commission bi. Momar Ndao bu ASCOSEN bokk ci commission bi nekk euh, yor ASCOSEN euh, nekk association consumériste mais dañoo gis ni dafa tekk tekkaaral ci jafe-jafe yi nga xamante ni locataires yi ñu ngi koy jànkoonteel yow ban jàngat nga ci am. waaw xam nga tekk tekkaaral bi moom daanaka kenn defu ko <laughs> euh, Euh, euh, lépp lu mu mën ci ci côté boobu mu ngi koy def ay la yëween euh, léeg-léeg ñu tase ci terrain bi sax parce que léeg-léeg mu jël benn dossier dossier bi ñëw ci man dem ci moom ñu ñu ñu ñu traité ko toogul tekk tekk tekkaaral mais xam nga situation bi mooy comme li nga ma doon wax léegi rek les associations de consommateurs Ndeye Comba dañu nekk ci situation yoo xam ne ñu ci bëri comprendre bu ñu ko parce que association de consommateurs bu bëggee tout le temps di nekk sur le terrain pour défendre les populations Euh, te amul moyen yi souvent dina sonn trop mais je pense que euh, Momar mu ngi ci léegi léegi vraiment ñu bokk ay dossiers yoo xam ne wala ma taseeg ñoom ci terrain bi gis yoo xam ne ah wax dëgg yàlla ñoom ñu ngi ciy def lu ñu ci mën te itam ñoom euh, à part loyer bi am nañ ñoom yeneen question yoo xam ne ñu ngi ciy yëngu donc dama jàpp ne rek loolu la waaye du ne dafa bàyyi situation bi comme ça Euh, moom itam mu ngi ciy waxtu ak comme ni ko yeneen association de consommateurs yi di defee lu mel ne UNCS e lu mel ne euh, euh, éco-citoyen ak ñeneen ak ñeneen donc LCS bu professeur El Hadj ñoom ñëpp ñu ngi ci yëngatu et je pense que situation bi nag moom moo particulière parce que association de consommateurs maître ma soxna kan chaque jour nga dégg ko donc ñun ñu ngi ciy yëngu mais jafe-jafe yi nga xamante moom la ñuy jànkoonteel mooy mënuloo euh, à chaque fois nga nekk en action sur le terrain et sans moyen du tout donc euh, ay démembrement dañuy aider état ci lu mu waroon a def mais malheureusement état aidé wuñu ñun li nga xamante moom la yëngu muy euh, le consumérisme. waaw léegi état Sénégal mu ne dafay réforme maanaam dafay xoolaat loi bi nga xamante ni moom la fi voté woon caatum deux atum 2014 lan nga ci xalaat ak tamit yan coppite lañ ci bëgg a indi exactement. waaw coppite yi ci bëgg indi nag euh, ay la yéwén euh, euh, président comme ni mu ko waxee daf ne nañ saytu loi bi pour xool li nga xam ne mooy insuffisance yi ak manquement yi nga xam ne moo ci am pour ñu mën koo joyanti ah ban formule la ñuy jël nag ñun booleeguñ ñu ci benn waxtaan boo xam ne dañuy jël ay résolution xaj na nag ñoom ci seen biir ña ngay waxtaan pour xool lan la ñuy teg comme mesure mais mesure bu ñu mën di teg day kumba mesure bu ñu mën di teg te defuñu ay garde-fou pour vraiment suffisamment de ressources humaines yoo xam ne dañuy wàcc sur le terrain pour di surveiller loolu nga xam ne moom lañ jël comme mesure c'est voué à l'échec mesure bu ñu mën di jël bu fekkente ne boolewuñu l'ensemble des acteurs du secteur muy borom kër yi muy locataires yi muy banques yi ñuy ñëpp ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci secteur bi courtier yi sax dañ leen ci war a boole pour xam l' ensemble des problèmes mën ko parce que loi bi ñu ko fi defee ba léegi xam nañ yan porox ndoll la nit ñi di utiliser xam nañ ne agence immobilière yi tey am na ci ñoo xam ne euh, amuñu benn sérieux am na ñuy sérieux nag ñoo xam ne c' est des professionnels mais malheureusement la majorité ay agence immobilière xaalis la ñuy ay kiosque ay garage dañuy ubbi rek di jël xaalisu nit ñi bu leen bu ñu amee benn wala ñaari kër ça y est ñooñu ñoo mettil situation bi mais bu fekkente ne secteur bi bëgg nañ ko organiser quelle que soit résolution yi lépp lu président de la république wax suñu appliqué wul mbir yi sur le terrain daanaka c'est voué à l'échec président nag yàgg naa attirer l'attention de son gouvernement xaw ma nag daf koy wax pour des raisons politiques ou pas mais secteur bi man li ma soupçonné mooy a na borom doole yu ci nekk yoo xam ne ñoom ñoo tax affaire yi mënta dem il faudrait que loolu yëpp ñu teg ci suuf pour mën a régler problème bi définitivement et tant que accompagner wuñu borom kër yi dans leur construction en en faisant des réductions sur les les les les dafay gën di mettre rek les matériaux de construction yeeg yëpp dañ ko war a xoolaat xool terrain yi li muy jar parce que tey dañ lay jaayee mètre carré deux mille cinq cent nga ñëw jaayee ko vingt mille wala deux cent mille donc il faut que état bi encadrer jaayum terrain bi. gis nga jëndum kër problème yi ci ne terrain boo jënd rek am na coow li coowu suuf ci réew mi moom moo indi cherté loyer bi et que ñu def des politiques des politiques sociales comme ni ñu defee euh, logement sociaux yi gën koo leeral xam ñen ñoo koy am parce que biñ koy joxee dañ ne woon na ñëpp bindu ci benn plateforme léegi buñ koy joxe itam ñi ñuy jox nañ ko génne ci plateforme yi ñu ñi gis ko pour ñu xam ndax ñu koy jox niñ ko war a jox wala joxuñ leen il faudrait que daal quelle que soit mesure bu ñu war a jël ñu xool de telle sorte que euh, dina jaar yoon et que li ñuy jël comme décision il faut que mën a appliquer sur le terrain parce que loi moom li ñu ci jor bëri li ñu ci voté bëri na bu ñu génne waatee benn day ñëw yokk ci fi nekkoon rek. pour yow logement sociaux est-ce que mën na régler problème mu cherté loyer bi surtout yenn logement sociaux yi. ah oui oui oui, oui. logement sociaux mooy euh, régler problème bi dans le long terme. si bu fekkente ne euh, locataire bi amul kër euh, mu ngi am as tuut lu muy dajale bu amee somme nu mu mën di toll mu mën a am këram léegi nit ñi démystifier nañ dëkk fu sori su tal yi baaxee rek tey muy jam ñaajo muy fépp foo xamante ni nii état muy Lac Rose seen pôle yu nga xam ne ñu ngi koy tracé fépp foo ci am moom moo lay gënal nga nekk locataire bi dund yenn situation yoo xam ne ay jafe-jafe rek ngay dundu tey locataires yi képp ko ci jox kër mën na faa def ab néegu ñaxam wala néegu sengam wala néegu barak dem dëkki fa moo gën situation yi nga xam ne yu jafe la te locataires yi ñu ngi koy dund euh, mu metti trop tar loolu ci ñoom donc logements sociaux yi li ñuy ñaan rek mooy mu am la transparence qu'il faut am li nga xamante nii mooy équité de telle sorte que les ayants droit ñu mën leen ko jox mais bu fekkee dañ ko def système de quota ah di ko joxe ci naan la joxal say nit wala joxal diw ak diw ak diw pratiquement euh, ñi gën a am doole ñoo koy jëndaat tabaxaat ko defaat ko mettre ko en location bu boobaa on dans la même situation mais, dans le long terme mhm. il mmh. y a que sociaux qui peuvent régler définitivement ce problème là mais mais logements sociaux normalement comment ça se passe naka la euh, nit ki di ci mën a amee kii liggéey ak ki nga xamante ni sax peut-être liggéeyul euh, salarié bi ak góorgóorlu bi comment ça se passe souvent dans les règles de l'art euh, pour nit ki am ci logements sociaux yi waaw xam nga sociaux yi euh, transparence la laaj laaj na aussi bu disponible mu accessible transparence bi mooy man bu ma soxlaa logement social ubbil nañ ma plateforme boo xam ne dinaa dem inscrire fa joxe données yi ma laaj yëpp mais en retour critère d'éligibilité yi suñ ko joxee ba pare bu fekkente ne élire nañ ma war naa mën a xam ndax am naa wala déet wala ñan ñoo am mais euh, depuis ñu ubbi plateforme bi nit ñi ñu ngi inscrire léegi léegi rek dégg ci télé bi ne joxe nañ deux cent sociaux wala nangam nangam mais doo xam ñañ ko jox ñan la ensuite ndax yelloo nañ ko wala déet logement social mooy logement boo xam ne day jàppandi ci ki nga xam ne loxoom jotul ginnaawam mais malheureusement suñu logement sociaux yi aussi xaw na cher tuuti ndax bu fekkente ne dañ ne logement social ah mu egg ci yenn njëg yi weesu na dix millions quinze jëm vingt daanaka dootul social mm-hmm. lu social mooy loo xamante ni nii nit ki comme nañ defoon ca plan jaxaay Euh, dinañ la jox benn kër ak nu mën di mel entre euh, euh, cinq millions jëm bi au moins góorgóorlu bu nekk dina mën a fexe ba am ci kër mais bu fekkente ne prix yi egg na koo xam ne ñi nga xam ne dañoo néew doole muy jaay katu caaf bi muy borom boutique mbagg bi ñoom ñëpp ay sénégalais lañ te ñoom ñoo ëpp ci locataires yi mënuñ cee am daanaka la problème reste entier léegi Elimane yow lan nga xalaat wala seen association bi lan la xalaat ci dossier euh, judiciaire yi nga xamante ni dafa am uniquement mi ngi au tribunal euh, ci diggante bailleurs ak locataires yi bari na. waaw ñun en son temps euh, proposé woon nañ président ne ko pour ñi ngay dimbalee ñu ñàkk seen liggéey ndax mbas mi ñu am ay problème ndax mbas mi ak pandémie bi. bu fekkente ne seen i dossier egg na tribunal parce que président li mu waxoon mooy mënul dimbale locataires yi parce que xamul nu ñu toll tey boo jëloon ku mel ne euh, Médina xamoo ñaata locataire fa nekk nga dem Gueule Tapée xamoo ñaata locataire fa nekk nga dem Parcelles kasaalika xamoo yan lañ dëkkee yan mooy borom kër yi yan ñooy locataires yi donc li ci gën a am solo mooy nga am base de données bu fiable alors tribunal bu fekkee am nañ ay dossiers yoo xamante xam nañ ne ñii. ay jafe-jafe moo tax ñu nar leen a génne seen kër wala ñu nar leen a expulsé mais na président jël une enveloppe éponger leen seen arrière ah bàyyi leen ñu continuer fay parce que euh, mbas mi dimbale nañ ci ay la yéwén ay nit yu bëri yoo xamante ne ni euh, ci secteur bu nekk lañ nekk donc bu fekkente ne mënuñu loolu ah ñu xool ñu ñuy def ak bailleurs yi moo xam imposer leen système de moratoire ne leen lii mbas mee tax ñu yore leen lii. faw ngeen may leen bu ñuy fay di ci teg tuuti tuuti tuuti tuuti ba muy éponger intégralement en tout cas il faudrait que ñu trouver solution sinon c'est des centaines et de familles qui, qui vont se retrouver dans la rue et que du loo xamante ni nii lu baax la ci politique du gouvernement bi socialement parlant c'est une bombe et heure bu exploser du man président locataire yi ci man sama kaw lay dal du keneen lay dal ci nguur gi lay dal ci état bi lay dal donc ñoom ils ont intérêt à réfléchir pour trouver des solutions le plus rapidement possible face à cette situation parce que pandémie bi nag jógee guddi ba léegi euh, Elimane Sall peut-être question euh, ñu bàyyi la euh, nga gis ni ci jamono bi ñuy wax ni dañu yokk encore location bi di laaj nit ñi ay cinq mois six mois wala plus ñu ngi wax ni tamit dund gi dafay daal di walla sax dund gi actuellement dafa daal di yokk yow par rapport à sa ban appel ngeen di lancer autorité étatique ak commerçant yi tamit. alors léegi bu fekkente ne locataire am na problème. daanaka c'est toute une famille ah nii buy yokkee aussi bu fekkente ne la loi de 2014 dafa wàññi woon selon des pourcentages selon prix loyer bi dañu war a xool actuellement tey envisagé par zone tey bu ñu nee fu mel ni Géejawaay deux chambres salon waru ko mën a dépasser temps fu mel ne Parcelles Assainies deux chambres salon du fa passer temps chambre salon lii la fay jar villa lii la fay jar ñu conformé wu par zone pour mën a fixer les prix parce que surface corrigée yi am na fi mais ñi koy utiliser bëriwul surface corrigée mooy tey kër bu ñu la loué wala néeg bu ñu la jox wala kër bu ñu la euh, appartement bu ñu la jox nombre de mètres carrés bi ak fan la positionné woog yooyu yëpp dañu koy calculer pour mën a fixer prix bi mais tey raar na ñu loué la nga xam prix bi ñu la fixé lan moo tax donc il faut ñu jàngat lépp loo xam ne problème la sur terrain pour mën indi ay solution mais bu ñu toogee rek tëju génne seeni solution daanaka dañuy delloo buum ca mbooy mbooy ba il faut aussi ñu réglementer les agences immobilières mooy bala ngay ubbi agence immobilière il faut ñu imposer la yenn normes yi nañu retourner à la carte professionnelle parce que aujourd'hui le secteur li ko yàq loolu bokk na ci ay nit ñoo xam ne amuñu fu ñu jëm xamuñu lu ñuy dem dañuy jël seen benn garage wala benn kiosque rek ubbi ko comme agence immobilière di di di di ren di ñi nga xam ne ñooy ñooy loué et loolu aussi il faut ñu réglementer ko de telle sorte que agence bu ubbi rek am nañ la repéré nañ la xam nañ li ngay doxal te say contrat balaa mooy egsi ci yow am na fu muy jaar ñu contrôler ko donc secteur bi daal lool la soxla pour l'instant pour que définitivement ñu mën a am euh, une solution boo xam ne dina soulager et les bailleurs et les locataires parce que bu ñu fàtte locataire bi bu fayul manque à gagner la pour bailleur bi nga xam ne dafa def investissement et du coup bailleur bi il a intérêt à participer à à à a à la solution du du du, du problème bailleur bi dafa war a participer ngir ñu trouver solution parce que moom da ciy gagner muy jot xaalisam régulièrement dina mën a am retour sur investissement locataire bi muy fay ci tey bakkanam mu leer ko ne tey duñ ko fitnaal solution dina am donc il faut que loolu yëpp ñu xoolaat ko impliqué ci ñëpp bàyyi farloo far farloo beeg kii lii la kii lii la xalaat képp koo xam ne mu ngi yëngu ci secteur bi nañ la woo jël sa xalaat parce que xalaat la rek du leen tere ñoom ñu jël décision yi ñu bëgg a jël mais ñu fekkente ne dañu exclure ñoo xam ne dañu waroon a bokk ci discussion yi mooy waral bis bu décision ñëwee ñooñu taxaw ne ñun concerné wuñu ça ne nous regarde pas. élémentaire bi jeex na xam naa dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak auditeurs yi. waaw Ndeye Comba man maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi di ñaan yàlla euh, lii ñu fi waxtaanee mu nekk njariñ pour euh, askan bi euh, de tele sorte que li ciy génnee bu ko kilifa yi déggee ñu mën a trouver une solution définitive ci problème bi nga xam ne mm, sonal na Sénégalais yi muy la question du loyer maa ngi lay gërëm di la sant.